votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia bilen Pour vos reportages, les émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngeko TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV. l'honorable Diallo qui est là à ma gauche, euh, Malal Diallo qui est un grand responsable politique qui fait partie du cabinet du président, euh, Salamba, qui est un ami, qui est un frère, euh, qui est en charge de mission aussi euh, du président Ablaïda Diallo. Mohamed Niang, un responsable politique en mouvement au niveau de Parcelles qui est aussi Daoud Diallo. Pape Diop qui qui est un membre de la coordination des leaders d'ADD que je préside et euh, malgré nous aussi la délégation Goumi de Kermassar, Massar nee na joron kala donc malgré tout ngi plus connu sous le nom de Seydou je suis le conseiller spécial auprès du président conseil économique social et environnemental xam naa lenn Ablaye Daouda Diallo dafa am cër lool ci Fama tey moo ma yee c'est lui qui m'a réveillé ce matin mu ni ma Seydou il faut que def tout dans la délégation euh, au niveau de la permanence il faut faire un mouvement autour du mouvement de l'unité euh, mouvement pour l'unité et la solidarité internationale Bon c'est une dame qui est aux États-Unis qui est une grande responsable de l'APR au niveau des États-Unis pour d'appeler le président Macky Sall pour d'appeler le président Amadou pour connaître le président et le premier il faut que vraiment nga def tout pour nga teewee ko mais y'aura mon frère qui sera là-bas woo ko léegi mooy Abou mi Abou Diallo qui est le frère président donc da ngeen xam ni foo ngeen comprendre que vraiment dafa am ittee lool ci mouvement bi dafa am ittee lool ci responsable bi moo tax mu yebal frère am ak man parce que je suis l'un des conseillers les plus portables ay daaw dara mun naa ko mais Abdoulaye Daoud Diallo c'est un le président conseil économique et environnemental il est là pour tout le monde et c'est Abdoulaye international Parce que des Dembo il a donné France Paris il a donné le 13, le mardi mini passé j'ai fait là-bas un événement politique à l'honneur d'Abdoulaye Daoud Diallo pour pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024 à à il a fait il a il a fait tout ce qu'il pouvait pour jàppale Il y a plus de mille et quelques personnes parce que pourquoi parce que c'était Ablaïda Daouda parce que nous je suis le conseiller spécial de Daouda et pourtant n'y a pas du ñëw mais ñi n'y juste pour honorer ko Quel kenn le c'est tellement qu'il y avait du monde c'est pour vous dire Ablaïda Daouda c'est un homme d'État un homme d'État de type nouveau c'est un homme généreux c'est un homme bon xamante des fois d'un ko moi je suis au conseil foofu la am bureau C'est des centaines de centaines de personnes ont défilé chaque jour de régler les problèmes il y a il y a il y a plein de mouvements qui ont été ñoo ngi c'est, c'est, si au niveau d'ici au niveau de la diaspora et partout. te képp ku woo moom day day teew day teew d'une manière ou d'une autre non seulement ces gens vont partir day aussi jàppale financièrement loolu dafa jafe Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas n'importe qui cest l'homme de confiance du président Macky Moi, lorsque le président a dit que mon il sera ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles Mouné, man de que man aussi mun candidat mais lorsque le président l'a appelé mu ne dit Abdoulaye laisse ta candidature

il est en train de faire un travail extraordinaire qu'on lui reconnaisse ça qu'on lui reconnaisse ça il est en train de faire un travail extraordinaire on ne peut pas parce que c'est un homme social c'est un homme qui a des compétences un niveau d'études très élevé

Sénégalais qui aime le Sénégal à mon patriote, Ablaï Daou Diallo, c'est un vrai patriote. Madame et je vous remercie. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam avant tout mooy jéggalu vraiment ci retard bi ndax yaakaar naa ne sama jigéen sama xarit qui avait expliqué expliquer naa ko là. la de la ni ñëw expliqué Diallo parce que bi ngeen si vous vous rappelez bien vous na ne que na avez vraiment lancement mouvement bi Wa après biñ ci waxtaanee na leen la chef ku mel Seydou bi nga xamné ce sont des jeunes yo xamné président daf leen woo entouré leen boppam pour mu gëna défar defar liggéey bi ak délégation yépp donc ma ngi leen sante di leen gëreum di nuyu ñépp ñu fi ñëw ku nekk ci touram ak santam di rafetlu vraiment ngoon si walla ce soir avec donc le lancement du mouvement de l'unicité de la solidarité internationale de femmes Québec. Québec. mouvement bo xamné am solo trop donc ci touru délégation bi ak ci tout le président du conseil économique social et environnemental ñu ngi leen di nuyu di leen sandi nous leen di leen xamal ne aussi président yëg na bu baax a baax ne actuellement ñu def euh, lancement de ce mouvement là te mu ngi koy suivre ndax mouvement bii ngeen yore amal na ko solo trop ndax xam na ne amal na solo ci li ñu jëm élection yi ñu jëm donc mu ngi leen di sant di leen gërëm may nuyu nag vraiment ñiy organiser euh, lancement bi di ci jiital nag sama sœur Fama Kébé yaakaar naa ne ñi fi nekk ñëpp xëy na xam nañ Fama Kebe ay mbokk mi ngi fii ay sëram ay frère waaye man mi nga xam ne nekk naa ak moom plus de 15 yaakaar naa ne aussi am na lu ma xam ci moom. donc kii ngeen jiital seen mouvement na ngeen xam ne jigéen bu mën góor la jigéen la boo xam ne ni muy jàppale parti bi. xeyna na am na ñu bëri ñoo xam responsable parti xamuñu lool man xamna ci daal ndax comme nim ko waxé nek na le coordinateur fédéral de l'APR aux États-Unis pendant sept ans nek leur député lors de la 13e législature ma xam femme Kébé au niveau de Bronze mu nek la responsable des femmes liguey bo xam man mii di wax fii tey bu ma togué ñu ne ma député là, jouer na ci rôle bu am importance kon dañ koy sant di ko gërëm voilà kon dañ koy sant di gërëm di nuyu nag vraiment góor yi mu àndal fii mooy boo limee rek juum comme ni ko waxee ñoom Gumba Maki ñoom Cogo ñoom Thier Gaza Baara vraiment ak tout le groupe bi nga xam ne yéen bi ma leen xamee ba léegi bi ngeen jàppee Bamba Kébé ba léegi yéen ngi yéen ngi continuer ko jàpp mais aussi leen Amazones qui sont là yéen jigéen ñi maa ngi leen di sant leen gërëm di rafetlu seen teewaay parce que gis naa ni ngeen jàppale Fama Kébé ni ngeen jàppale mouvement bi mais ni ngeen jàppale président de la République Macky Sall ni ngeen jàppale aussi notre candidat Amadou Ba ndax bu ñu naree gagné élection yi ci yéen lay jaar ak ci xam naa ni yéen seen parti projet bi ngeen poussé bu mu mat sëkk yàlla na yàlla fay na ngeen xam ne parrainage bi ngeen defal Ablaye ñu leeral lu tax ñu def ko parce que femme Kébé dafa nek femme leader dafa nek femme bo xamné ne day seetlu mais aussi dafa nek sama xarit bop motax bi mu waxé mbir mi bi ma waxee ak mon frère le président du conseil économique social et environnemental mu né comme mouvement la té xamna naa mouvement yi li ñu nara a ci élection yi jëm dina leen jàppale sama kent lay kat moo tax mu recevoir le mouvement deux fois te xam naa ne yemu fii moo tax bi ñu defee parrainage bi ngeen jël seen parrainage ngeen jébbal ko Abdoulaye Daouda Diallo mais en retour Abdoulaye Daouda Diallo jël jébbal ko son frère Amadou Ba notre candidat au 24 février 2024 le 24 février 2024 le 25 février 2024 soirée ngeen xam ne Abdoulaye Daouda. tey ak suba incha allah rabbi mu ngi ginnaaw Amadou Amadou Ba pour que au soir du février que la paix triomphe pour ces élections là. keroog rek maa ngi wax man ki ma xam ne xam ne je un homme de terrain. presque temps yëpp au Fouta lañ nekk di def le travail de SAP mooy travail boo xam ne sur le terrain lañ ko def ndax liggéey bi c'est su le terrain saa yu nekk daf may naan demal foofu nga wax ak militants yi nga expliquer leen nga convaincre leen pour que ñu voter notre candidat Amadou Ba pour que mu gagner vraiment ces élections là te incha allahu rabbi incha allahu rabbi di ngeen gis que ne Abdoulaye Daouda fii dinañ ko gagné au labé ba ñëpp xam ne ne moom bi mu waxee ne nekkatul bi mu bi ko président convaincre ba mu dellu ci ginnaaw mi ngi ginnaaw Amadou Ba incha allahu rabbi te ko jàppale ba ñëpp gis ko moo tax képp koo xam ne mi ngi ànd ak Ablaye Daouda Ablaye Daouda li mu lay ñaan mooy na nga nekk ginaaw Amadou Ba mooy na nga ko jàppale.

développement de infrastructure développement de infrastructure lolu le président Macky Sall xam motam mu def mu def BRT mu def terre mu def ay route ay autopont ay pont la Macky Sall def ba nga tay ji BRT bi bu nga jël bus nga dem Dakar nga def li soxla nga ñëwaat parce que amul amul mais c'est du développement

les trois présidents réunis defuñu lu Macky Sall def kooku yàlla moo ko def ñu reconnaître loolu ñu sant ku ñu gërëm ko li des lii Moi, Amadou Ba mo fi nek mom moy suñu candidat mbokk yi li ma di ñaan di leen ñaax surtout ce mouvement là Nous nous Amadou Ba nous jappelé Ablaye Daouda na jappelé tous les responsables de l'APR de Benno Bokk pour que ñu mëna gagner ndax Sénégal duñ ko jox ci ay loxo cuune duñ ko dox parce que tay ji je crois que la majeure partie des Sénégalais ont compris que pour que ñu mëna def la continuité foog ñu jël nguur gi ñu jox koo xam ne moom la Macky Sall tànn moom la Abdoulaye Daouda tànn muy Amadou baax kon na mbokk yi vraiment na ngeen xam ne Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi sant mi ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm nag vraiment Fama kebe du ma taay di ko gërëm Fama Kébé c'est une femme battante yéen jogo dem leen di ñaan lépp lu ngeen jàppoon Fama Kébé na ngeen ko gën a jàpp lépp lu ngeen téyeloon Fama Kébé na ngeen ko gën a téye aussi là c'est un appel solennel aux responsables du parti nous nous appelons mouvement bi. nous nous appelons ce mouvement là parce que qui du mouvement bu mouvement la tout xam c'est un mouvement comme vous l'avez dit international donc nous sommes responsable politique yëpp jàpp ci Amadou Ba na mouvement bi nous avons appelé Nous avons Ablaye mouvement bi nous nous comme appelé Ablaye Nous nous jàppale leen moy jàppale victoire amourba Ba moo tax maa ngi leen di sant di len gërëm di len gëna encourager parce que gis na ne vous avez fait un team teamwork yéen gor góorgóorlu di japp vraiment bayu len kon nak yalla na len yalla fay kàddu rek la ci bëggoon xam en tout cas di leen sant di leen gërëm di sant délégation mi nga xam ne na fi di sant góor ak jigéen ak sen vraiment coono bi yalla na len yalla fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jël ngeen jëf merci beaucoup votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia bilen Pour vos reportages, les émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngeko TV, Indil Nalen Lubes. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngeko TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV.